asalaamaaleykum internaute Senego TV ak kawteef ab tënk ci information lu yeyal procès kii di Kaliphone Sall ay information yi fi jib nag bokk na ni ki nga xam ne mooy aji caare mi topp euh, Kaliphone coup et blessure soo moytuwul tey ci alxames bi du ñëw ca tribunal la ko waral nag bokk nag ay avocat wam ñoom ñoo daal di def ab demande bi nga xam ne daal seen cliente boobu di aji caaxee état de santé mayu ko pour mu mën a def ab déplacement ñëw fii nga xam ne mooy tribunal euh, bu ndakaaru ca noonu sax ñi nga xam ne it ba tey ñooy avocat wu Adji Thiaré fas yéene nañ def ab demande bi nga xam ne médecin bi di suivre Adji Thiaré mu ñëw ci tribunal wala mu yebal ab ndaw ngir mu mën a wax ki nga xam ne mooy juge ba état euh, de santé bi Adji Thiaré euh, nekkee jamono ji te kenn yébewu ko rek ku dul kalifon euh, Sall ñi nga xam ne nag ñooy défendre Kaliphone Sall naam mbir mi neexu leen wante it jàpp ñu ci lu dul ab tàppale mu ngi ci suuf wante it ñu ngi xaarandi juge ba lan lay décider ca boobule euh, cas ba tey mbirum aji caare it bu nekkee moom ak Kalifone Sall jeexagul ndaxte it bu nekkee euh, procès bi daal dinañ ko renvoyé mu nekk it ñaari renvoi ndaxte euh, le 3 lañu ñu kii di Kalifone Sall ba mu ñëwee it aji caare daal di absenté ci alxames bi it bu moytuwul noonu la nar a demee te it bu demee noonu kii di Kaliphone Sall dana yàgg euh, ca prison ba la temps muy jàkkaarlook ak aji caare ñu daldi ko euh, jugé ngir fàttali nag euh, mujjantal ba mu janoo ak juge bi avocat wu Kaliphone ñoom dañu déposé woon ab liberté provisoire mais juge bi daf ko daal di jamono ji nag ñu ngi toppee Kaliphone Sall coup et blessure bi mu def ci Adji Thiaré naam bu dee sax mbirum viol daal di nañ ko écarté wante dossier ba jamono ji ñu ngi cee yey yàbbi boo xoolee ci diggante Kaliphone Sall famille Kaliphone Sall ak xaritam bi di Cheikh Ahmed Cissé ak lu ci mënti nekk rek fii ak ay heure incha allah dinañ leen toppal boobu boobule dossier lépp lu nekk ci information dinañ leen ko indil ci Senego TV ak Kawtef jërë ngeen jëf.